jamono ji li nga xam ne moo di xeesal rek nekk loo xam ne dafa nekk à la du nekk tendance comme ni ñu koy waxee lu ci mel ni jigéen ñi ak góor ñi ñëpp jamono ji dañ koy def ngir mën a gën a mën a yokk seen loolee nag askan wi daal dinañ see joxe seen xalaat. ah xeesal de ma ci xalaat moom jigéen dañ ko war a bàyyi ndax baaxul amul mucc a dégg neex yàlla bu ñu sañoon nekk suñu teen naturel yi moo ñu ko gënal. xeesal moom doon loo xam ne moom xam naa ne baaxul moom ndax. teint a la yàlla bindee moom moo gën lépp quoi teint noir moom moo gën lépp. non man de moom du ma wax sama sama jigéen naa ko xeesal xeesalal waaw yooyu moom duma ko wax sama jigéen quoi ndax jàpp naa ne teint bi la yàlla bindee moom moo daax quoi naturel moom moo daax. xeesal bi yàlla man du ma ko def man musuma koo def teint naturel laay def nag pour garder sama peau daal te xeesal moom day yàq yaram waa day yàq yaram day tax a teel a màggat teel a froissé vraiment xeesal baaxul moom digalu ma ko benn jigéen. xeesal non xeesal moom baaxul xeesal moom wax dëgg yàlla am na conséquences yu nekk yoo xam ne moom baaxul franchement bu dëgg rek neex yàlla baaxul jigéen moom maanaam xeesal baaxul sax normalement mais ne jigéen moo ko gën a yelloo quoi pas góor góor moom mën a xool yeneen yu mooy ay xeesal quoi bien sûr am na góor ñoo xam ne dañuy xeesal am pagay sax waaw secteur bu nekk nag gars yi foofu ñu bëri dañuy xeesal góor ñu quoi xaw ma nag lan moo tax ah, di ñaan ñuy def xeesal di laal ay zel yooyu noonu. dañ ko war a bàyyi di ut diw bu baax di ko diwoo maintenir seen teint yi. leen di conseil ñu bàyyi ko ñoom ñëpp waaw ndax doon na loo xam ni baaxul góor gu xeesal boo gisee tey jii doo xam lu muy rool quoi mooy loolu am na loo xam ne daal mooy loolu rafetut waaw. nañ ko bàyyi amul mucc waaw amul benn mucc te yàq yaram dangay teel a màgget man daal digal ma ko benn jigéen. xeesal dafa am ni mu jig am ni mu jigul la moom bul laal quoi. bu la jigéen tamit ah garaawul parce que jigéen moom lu yokk taaram mu man garaawul quoi bu dee taar kese kese la garaaw bu dee nag leneen la nag moom am na ay conséquences yu nekk si biir quoi. bu ñenn ñi di jàpp ne. xeesal dañ koy def ngir mën a yokk seen taax ñeneen ñi li ñu jàpp nag moo di ngir mën a yokk sa taax rek warul tax ba nga def loo xam ne rek dalay lor wala mu indi la yeneen jàngoro yoo xam ne rek lañ ca doon wut te doo ko mujjee am waaye lu mu ci ci doon rek ñuy ñaan nit ku nekk ci la ngay dugg wala lu muy def mu ànd cee xelam te bañ cee lor boppam